social Touba ci kanam moom mooy ngir taxawu jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi ndax dëkk bi borom mi ko sanc dafa ñaan lépp loo xam ne bëgg na ko ci dëkk bi suñu borom defal ko te bokk na ci taxawu ñi nga xam ne dañoo soxla woo comme ni ñu ko doon leeral léegi ci waxtaan wi e, mu mel ne Touba ci kanam mooy jur social Touba ci kanam nag leen tax a jug mooy lépp loo xam ne nii ab dëkk war na koo am rawatina li nga xam sëñ bi da ñaan ci dëkk wàllu infrastructure ak yu demee noonu gis ngeen liñ ci jot a jëmbat waaye nag ñor gu leen dimbali nit ñi ñore moo waral ñu utaat beneen bànqaas boo xam ne social taxawaayam nag mooy ñu taxawu ñi nga xam ne nii seen loxo jot seen ginnaaw ci wàllu fuñ dëkk ndax léegi ngeen gis barab yoo xam ne dëkkuwaay ba day doy waar ak ñi nga xam ne nii dañoo wéradi te seen i bokk xëy na néew nañ kàttan ci mën leen a taxawu ak lu mel ne barab yi nga xam ne nii dañu fay jaamu yàlla mel ne daara kaamil ji nekk jumaa ji ak yu demee noonu ak ñi nga xam ne dañoo soxla woo ab dund te amuñu fenn fu ñu ko sàkkoo ji ñooñu ñëpp daal ci gàttal daal taxawu ñi nga xam ne dañoo soxla woo mooy rôle commission sociale li nga xam ne moom la ñu amoon objectif mooy fexe ba am 2000 personnes 2000 personnes ñu ngi ko doon natt ci ay 40 40 millions 500 la ñu ko doon natt. 2000 personnes 2000 familles. moom lañ moom lañ amoon objectif euh, ñu ngi koy doon natt ci ay 40 40 millions 500 la ko doon natt. ndax famille bu nekk yaa ngi war a am gën ngaa néew euh, benn saako ceeb bu cinquante kilos ak juróomi kilos yu suukar ab tàndarma ak 2000 euh, francs yu koy transporté ak benn yére yére bi moom xayma wuñ ko ci xaalis ndax mën naa doon lu seer lool mën naa doon lu diggu doomu euh, jamono bii ñuy waxee nag objectif bi nga xam ne ni moom lañ visé woon weesu nañ ko fi mu toll ñu ngi ci ci bisub tay bi ñu ngi ci 2000 2185 famille ba léegi tamit jeexagut am na liste yoo xam ne dafa war a tàmbaliwaat Euh, altine incha allah ndax li nga xam ne nii dañ ko fee indi yëpp te seen i borom indi ko fi ngir bëgg mu delluwaat ci askan wi lépp dañ ko fas yéene delluwaat ci askan wi incha allah. liñ jot a séddale actuellement suñ toll nii si nature mu ngi toll ci 33 millions li nga xam ne ni moom lañ jotagun ci xaalis war koo séddale mi ngi toll ci 25 millions fii ñuy waxee nii séddalegun nañ 9 millions waaye nag lu ñëwaat tamit dañ ko ciy dolliwaat rek lu ñëwaat dañ ko ci dolliwaat ci biir dañ ko defoon ñaari xaaj biir corniche bi ak bitim corniche bi euh, moo waraloon recensement boobu ngeen doon gis xëy na dana génn ci yeneen image waaye ginnaaw bu lal wéyee tamit dañoo gis ne am na barab yoo xam ne nii di sanc dëkk bi e, alxuraan mooy léppam ba muy dem ci géej gi rafiq kitaabullahi wal mustafa nabi wa ashabu fil bahri hiina adóor la waxoon moo waral daari kaamil yi nga xam ne dañoo nekk ci biir dëkk bi yëpp am nañ lim bu ñu far a yóbbu muy daaru salaam e, da bu sëñ Soyebu Mbàkke xewar ak daaru daaru Minan ak euh, daaru Salaam ak daaru Muxti ba ci daari kaamil yi nga xam ne dañoo nekk njaarim yooyu yëpp war nañ fa yéene yóbbu ay ay loolu nag bokkut ak xayma bii ma leen wax nii euh, ci handicapé yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi tamit association yi fi nekk yëpp ku nekk am na limbu war a yóbbu ci yow loolu tamit bokkut ci li nga xam ne moom lañ jot xayma nii am na tamit euh, suñu bokk yoo xam ne dañoo loru woon ci liggéey bi daaw ci bi ñuy def opération defar yoon wi am na ndimbal yi ñu fa war a yóbbu nii orphelinat Mame jaar bi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi tamit am na ndimbal yu fa war a yóbbu yooyu yëpp nag bu ñëwee day dolli kuwaat ci liñ jot a def actuellement liñ jot a def mooy 30 33 millions séddale nañ ko ci dund séddale nañ 9 millions ci xaalis waaye lim bii ma leen wax bu ñëwaatee da ciy dolli kuwaat kon bu mu bett kenn bu demoon ba doon 80 millions wala mu doon 100 millions ci ci ci journée bi. commission sociale moom li muy def lu sax loo xam ne nii jamono ju nekk ñu ngi ci. Eh, ndax weer wu nekk am na loo xam ne dañ koo baaxoo yóbbu ci daari kaamil yi nga xam ne moo nekk ci jumaa ji loolu bu sos bu weer koor ñëwee bu ñëwul lépp ci lañ nekk ñi nga xam ne noonu la ñuy taxawee malade di leen traité eh, ci seen wàllu wér-gu-yaram ak wàllu ordonnance am nañ ay pharmacie yoo xam ne dañoo def partenariat ak ñoom xam ne képp ko am ordonnance te mënoo koo jënd te ñu gëstu ba mu leer nañu ne am am nga ci ngànt su boobaa dañ la koy fagul taxaw gi ni taxaw nit ñi tamit ci wàllu dëkkuwaay loolu day wëy day wëy taxaw gi ni taxaw ci wàllu dund day wëy Euh, dafa am nag am nag bis yoo xam ne nii nit ñi li ñuy sàpp di gën a yokk moo tax bu jotee dañuy gën a yaatal mbir mi mooy lu mel ne bis bii di koor danañ ko def ci kori gi danañ ko def ci tabaski gi danañ ko def ci màggal gi waaye li social di def moom lu sax la xam ne jamono ju nekk ñu ngi ci ñi nga xam ne nekk nañ ci Touba Ca Kanam xam nañ ne chaque mois danañ wax def bilan boo xam ne dañuy leeral mbooleem ku joxe woon dara la nga joxe sombanam toll ak ñaata lañ ci def appui financier ak ñaata lañ ci taxaw ci ay malade ak ñaata moo ci dem si daari kaamil ci jumaa ji ak ñaata moo ci des loolu moom liggéey social la boo xam ne day xaw a sax waaw ñun duñ duñ dem di wër nit ñi nit ñi nga xam ne ñoo aajowoo ñoo ñëw ndax eh, suñu borom moo xam li nekk ci biir nit ñi ak li ci bit waaye ñun li nit ki wax ñu dégg ko lañ xam ki nga xam ne moo am soxla moom mooy demal boppam ca seetu Touba ci kanam bu fekkee dafa xam ne dafa wéradi moom mooy andi preuve yi waneen dafa wéradi indi ay kayit yu waneen dafa wéradi bu ko indee day wax yooyu bàyyi ñu ñun danañ yebal ay enquêteurs sociaux yoo ñoo xam ne ñoo ñooy ñëwaat gëstuwaat ba xam li mu wax ndax lu wér naan lu lu wér bu fekkee ne li mu wax lu wér la ñun ñetti anam yi dañ koy taxawoo bu fekkee ne mën nañ koo jël en charge totale dañ koy jël en charge totale fekkee ne mënuñu ko ñu wax ko mu jéem dara ay bokkam ñu ci di ci des ñu ñu jéem ko bu fekkee ne doon na loo xam ne nii mënuñu ko ci genn anam ñu seet ab somme boo xam ne dañ ko koy jàppale noonu la ñuy demee waaye képp koo xam ne dafa am cas cas boobu lu mu mën a doon day def directement ci ci kanam buñ ci jotee nag ñu jéem koo